bon n'oubliez pas que BAT non non non non bul wax ci compte Facebook en 24 heures BAT a plus de 300 000 abonnés des abonnés après non non là là là mon dénigrement yàgg au Sénégal surtout ci politique bi ñu nekk nii dañu nekk ci benn monde boo xam adopter politique de dénigrement mais nous dans suñu système Bat l'immédiat est un citoyen sénégalais Bat l'immédiat est un leader avéré lu waay mënti wax mën ko leadership dans ce pays c'est quelqu'un boo il a toujours porté des combats devant il a quelqu'un boo xam ne xeex pour démocratie Sénégal Bat Dias saraxe na vie am ñu tëj ko ci kaso bi multi reprise ay nit tenté nañ ko assassiné c'était pour lan xeex démocratie Sénégal Quand il y a ba yàlla def ko mu nekk le maire de la capitale du Sénégal vraiment c'est quelqu'un bon. xam c'est un leader bu ñu toogee fi naan Barthélémy Dias amul ay militants ay ay fans la bon dama naan ñooñu

xam nga Barth bu ne bugul toog ak président Macky Sall mais bul fàtte ne Barth toog na ne il est le maire de la ville de Dakar en plus Barth est le maire du président Macky Sall. ñi nga xamante ne ñoo ngi suivre te naan bu leen filmé xale yi nous de tout faire pour loolu bañ am est le maire de Mermoz Sacré-Cœur donc bu ngeen ñu mënee comprendre kon donc Barth bu doon toog mu ne la Barth jëlul dara teg ci kaw Ousmane Ousmane moo teg ci kaw Barth xam nga du wax yegg dafa ko moom te c'est un intello intellectuel il a bien compris le message Ousmane te baat bu génnutoon wax ne man la sax loolu mën na tas yeewi askan man je ne vois pas à ce que Ousmane di ànd ak seen euh, moroomu gor dara xew ci biir nga njëkk a génn taxaw wax déjà ce qu'il a dit il a bien saisi non il a dit que am leader yewi Askeni. heureusement qu'il a dit que leader moom moo non moom moo bat il n'est pas un leader dans Askeni. Askan Wi te non Bat, oui euh, c'est vrai sur le point de vue de la coalition Bat n'est pas un leader là-bas Beaucoup de conférence des leaders moom moo toogoon wax ko moom mo non non moom moo am na leader Yewwi Askan Wi bu gisee ak le président Macky Sall ci kër doomam de 22h à 0h léegi nag mbir bu ñu ko waxee sànni ko nga moom ko te ragaloo ci dangay dem jëli ko ne lii maa ko moom Barthélémy Dias see sotti wax na li Ousmane doon wax moom la doon waxal et le pourquoi mu wax ko xam nga Ousmane wax ji fenn la daawtoon am problème ba baat du gën tontu ko mais Ousmane bu leeraloon la pourquoi baat dem. ki dem ci président Macky Sall lutax mu dem bu ko Ousmane leralon kon dans ce cas bat dootul am sens mu génn diko tont mais Ousmane dafa junj wax ji te yegul mais Baat. mais mais mom dafa waroon wax ne ki dem mom yóbbante na ko. Euh, Parce que Bat a dit que bi dem il a échangé avec Ousmane plus de 30 minutes au téléphone. te Ousmane, il dit que, nit ku wax ak yow bi ngay dugg mu génn rendre le compte c'est-à-dire donc yóbbante woon moo tax mu indalel la Ousmane du parce que qui dirait qu'on consent ba du tontu. mais Bataille parce que vidéo aussi euh, affirmer que Ousmane était au courant du dialogue et était au cœur du dialogue et je me suis vraiment déçu Ousmane génnee c'était une pièce théâtrale ku a dafa rôle euh, rôle en plus il a dit que j'ai avec lui au téléphone mais li ne c'est pas les propos d'un bon am mbooloo du topp sa ginnaaw nga taxaw naan ku nekk li nga bëgg a dégg lay wax ko cest li ngay wax kii ak li ngay wax kee doon benn quoi qu'il te dëgg benn la du ñaar du dina togg ak président Macky Sall te avant mi toog président Macky Sall mu tàggu la demandé sa mandat ngeen échanger au téléphone ba ne la su paree mu naa la ko passe au téléphone nga ne ko ok Ousmane n'a pas démenti

pour am benn beneen air beneen xet. xam nga wala beneen beneen beneen mbir moo xamante ne mooy tax du ñu mën a nooy li nga xamante ne moom mooy les grenades lacrymogènes loolu mooy la situation qui se présente ici fii nga xamante ne. non non non attendez balaa maa ñëw ma wax ak yow ci kaawu président Khalifa ak. le euh, leader de kii Cheikh Youm parce que Khalifa waxul dafa démentir Cheikh Youm. a ah, sur TV c'était sur cette TV mu envoyé message depuis quand j'ai dit cela et Cheikh n'a pas dit cela <laughs> non non non c'était c'était c'était une malentendue entre les journalistes Ce qu'ils ont mis en chapeau et ce que Cheikh a dit il est très difficile de travailler en tant que journaliste de reporter de relater les faits Khalifa ñawlu ko daf ko daf ko daf ko wo di ko signalé ne ko envoyé naa message xolal message et que Cheikh bimu lire liiree message bi il a dit au niveau sur le plateau que ni waxul loolu il a raffirmé journaliste bi nangu peut être journaliste yi reporté woon propos Cheikh yi ñoom ñoo def ñoom ñoo bind li Cheikh waxul li li Cheikh wax ils disent que ñom dañu ne Cheikh dafa ba Khalifa dafa désavouer ba dañuy subir li nga xamantene manifestant yi di khalifa alors que ñom ñom dañuy ñow ngir def sen Khalifa désavouer wul baat bon li baat def dara ñaawu ci lu ñuy ñaawlu amu ci. li kenn mësu ko gis def lu ñuy ñaawlu amu ci. li tamit bat il mooy li nga xamantene mo am fi ci Ziguinchor. voilà gis ngeen yenn manifestants yi. ils me disent que pour des raisons de sécurité je ne prenne pas dimanche. ça également pour vous dire vrai ligue la ñu que ni ay manifestations xamantene gis yu Khalifa Babacar Sall était là baat Khalifa Babacar Sall était là baat n'est pas un leader dans yeu Askan bat est un sympathisant de Taxawu Sénégal est un militant de Taxawu. Nous ne cesserons jamais de le rappeler à l'endroit de la communauté internationale aujourd'hui. Lundi 15 mai 2023, le président Ousmane Sonko euh, d'exercer leur résistance aux mhm. lois naturelles de la nature le cas de Batu Ousmane de révélé lu yaakaar naa ne baax na parce que lu bari def ci wara war a leere Barth n'est jamais un perdant comment est bon loolu loolu bat bat laa di parce que loolu yuuxu bobu ñu ko yuuxu mba bat li mu wax non ñu yuuxu leader am amna am na lu muy révélé ci réew mi parce que yag nañ wax ne ya une politique de pensée unique bu au Sénégal nit ñi gëmuñ ko won mais loolu bon là je suis pas d'accord parce que gis nga gis nga xam nga la moo tax ma ne je suis pas d'accord avec Ousmane sur ça je le dis ici Ousmane yuuxu bi ni yé nonu président Khalifa ak Pape Djibril Fall su ko métti woon day génn mu posté Twitter wala Facebook parce que bi ñuy jusqu'à présent gisuma nga gisuma mo déggoo ko mu wax ci déggoo benen leader bu nek ci bir Pastef mu wax ci kon donc ils sont d'accord avec les enfants ce qu'ils ont fait malgré génnoon na wax et que wax bobu sax man dama ci jàng Ousmane mo prêté lo xalé attention à ce que yuuxu war na am parce que bu waxutoon waxi yuuxu xale yi mën nañu bañ a xam ne foofu war nañ fa yuuxu nit moom moo naan bu ngeen demee bu leen yuuxu kenn te demaguñ kan moo ko wax lan moo xew ba ñuy yuuxu moom moo def yuuxu ci xel xale yi osons le dire Ousmane est d'accord avec yuuxu bi ñu loolu nangul nañ ko am na masse bu ne ci ginnaaw am na forte masse de jeunesse bu ne ci ginnaaw on l'accepte il n'est pas le seul il n'est pas le seul il n'est pas le seul il n'est pas le seul tout à l'heure maintenant le naan la loolu le parce que ci dégg nañ ci à travers fofu ñu né à travers Ousmane Sonko nous avons ñu gagné Dakar Voilà. Nous ñu gagné fenen ak fenen ma di rappeler que ni depuis 96 avec l'acte de la décentralisation ci le Khalifa Sall nekkoon le maire de Grand Yoff avec l'arrondissement de Grand Yoff Khalifa Sall nekk le maire de la ville de Dakar en 2009 nekkoon ci opposition gagné ko non non ma ngi ñëw ñu nekkaat le maire de Dakar en 2014 Khalifa Sall gagné ko sous régime de Macky Sall. Sur 19 communes de Dakar, Khalifa a gagné les 16 communes. Avec Yewi, sur 19 communes, on a gagné que 12 communes. Tu sais que fan la doon amee sens bu doon Dakar waaye ñoo tag ne ñoo toog ne Ousmane Sonko moo tax ñu votel Barthélémy Dias Dakar waaye xam nañ ñoom gis nga souvent dama la élection locale question de nawetaan la parce que question de gox la waaw am nga may la ci loxo bi. ana nga balma, nga. ana bulletin Ousmane Sonko.